xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dalal na tey ci samedi ji ñi nga xam ne moom la tuddee club des investisseurs du Sénégal yu ñëwoon doon sàkku si moom ay ñaan ngir seen mbootaay gu bees gi nga xam ne moom lañ taxawal. club bi nag nekk na loo xam ne dafay wuyu rek dëppook jamono fi mu toll ci wàllum xëccoo ci wàllu économie ngir rek mën a indi seen wàll ci tabax gi nga xam ne ñu ngi koy tabax réew mii di Sénégal. teewaayu waa club bi nga xam ne ñoom lañ tuddee club des investisseurs du Sénégal ci dëkk bu sell bi di Touba. nekk na jéego njëkk yi nga xam ne moom lañ teg ngir dëgëral li nga xam ne mooy secteur privé bu Sénégal. loolu lépp nag jublu gi di rek suqali sunu koom-koomu réew. club bi bi ñu ñëwee fii ci dëkk bu sell bii di Touba. Daara Hizbut Tarqiyyah dalal na leen ci turu xalif général des Mourides sëñ Mountakha Bachir. moo taxit ban fa jógee bi ñu fi ñëwee sant nañ ki nga xam ne mooy responsable moral Serigne Atou Diagne ci yitte ak pas-pas bi nga xam ne def na ko ngir teral leen teraanga ju dëppoo seen dayoo.